bopp dana compliqué ndax nag maanaam dañ ñoo jur ba pare dañ ñoo jur fu ñu war a juree waaye dafa am ñoo xam ne dañoo taxaw tey temm maanaam ñun bugg ñoo toroxal ñun doomu Saalum bugg ñoo bedd ñun doomu Saalum te ñun duñu maanaam suñu yaayu jurul ay doom yu ñuy bedd set suñu yaayu juruñu ay doom yoo xam ne tey maanaam dañ leen di sànni ndax ñun ay doomu Saalum lañ doomu Saalum nag du ay foo te aussi tamit comme xale ni ñu koy waxee te du ay caaxaan ñun ku ñu bëgg a caaxaane ñu caaxaanee la ku ñu bëgg a foowee dañ lay ñu ñun doomu nguuru Macky Sall bii dañ ñoo maanaam Saalum nguuru Macky Sall bi dañ ñun dañ doomu Saalum waaye nag ñun xeebuñu suñu bopp ndax ñun xam nañ ñun ñooy kan ndax doomu Saalum maanaam ku ko ñeme ci réew mi rek da nga ko fekk mi nelaw waaye bu yeewoo dal sa kaw il faut ñu joxaat ñu respect sinon élection yi ñu jëm dañuy banque suñu loxo te ku fi ñëw di ñu wax waxu politique ñu xeex ak yow ndax ñun dañoo sonn on en a maar jusqu'à la marre di Sangomar dañoo sonn ñun doomu Saloum yi yelwaanuñ nag kemande wuñ maanaam li ñuy maanaam li laaj ñi ñoo ko moom suñu yëf la nañ ñu gën a joxaat cër nañ ñu gën a respecté na ñu gën a respecté wàllu jeunesse bii maanaam jeunesse su Kaolack waa bii parce que munu ma ñoom munuñ am lu gën Kaolack ndax tey ñu xewle rek ñun taxaw nañ pour reyante waaye bu ñu amee ñoom dañ ñuy beddi ba élection jotaat ñu ñëw di ñu sonal fii nag dootuñu nangu kenn di ñu sonal. ah oui sëriñ boobu lépp gongo balaa mu doon xam ne lépp gongo suba ñu ci élection. dina xam ne mënatul gañe buntu këram ah, sëriñ buub tas na sunu yaakaar buur ndax defu fi dara sëriñ buub da defu dara ba dara ba doo booloo jeex tekkiwul dara démutee doo ko ñëw pare ne wu ma kenn te maa ngi lancé jeunesse Kaolack Kouass bépp la jeunesse Kaolack Kouass buñ paree ne respecté wuñu buñ paree ne